ngay man di jot vidéo yu am solo yi bàyyi ñu wax sabone boo noppee teg ci kolos bi kon euh, ñu dolli ci xisab aamil mi doonoon xatiilu bani israil ak xisab nag wa lu lépp rek mu ngi aju ci Muusa ndax moom moo guddi noonu yàlla wax na ci alquran wa is xaala muusa li qawmihi inna allaha yaamurukum an tadbahu baqara mu ni Muusa jamono ba muy wax ay nitam ni leen yàlla digal na leen ngeen rey aw nag ni ko firikat yi firee dañoo wax ni dañoo fekk ku ñu rey ci bani Israil mu tudd Haamil te xamuñ ku ko rey ñu wuute ci ak reyam ak la sabab ñu rey ko ak wuute am na ci rey gi ak la sabab ñu rey ko ku ñu wax xataa ak suddi yu dafa wax ni banu Israil dafa amoon benn waay bu bari alal am benn doomu baayam boo xam ni ak miskin la te moom boroom alal jooju amut kenn ku koy don ku dul doomu baayam boobi bi dund gi yàggee ci moom yàgg ci moom nag mu daldi ni na def pexe ray ko ngir mu man ko man ko don ginaaw mo koy don naka waaw rey waxna ni bim ko rayee da ko genné wat ko ba ci biti dekk ba mo wacc ko dal di dem déclare ne ñu ray sama jaay lolu moy ben am ñeneen ñu wax ni hamil momi yi dafa yoron jigen jo xamni doomu bayam la donon ko bari alal jigéen jooju nag kenn niruwu ko ci ab taar ci bani Israël léegi keneen beneen doomu baayam ñëw rey ko ngir denc si jigéen jooji am nañu wax ni la tax ñu rey ko mooy jigéen jooji mu takkoon te jigéen ji doon ko taaru ku bari alal beneen mbokkam ñëw rey si jëkkër ji ngir bu ko denc bi mu ko reyee la ko jëlee ci dëkk bi yóbbu ko ci beneen daal di ko fay sànni daal di déclaré ni dañoo rey sama mbokk sang léegi bi ci waa bani israël jaxlé ñu xol ku ko ray xamu ñu doon ñu dem ci yoon ci Moussa daal di dem ci Moussa mu ñaan boromam mu xamal nu ki ko ray bi Moussa ñaané boroomam boromam digal ko ni kon nañu ray aw nak Moussa ni leen inna allah ya'murukum an tasbahu baqara yalla yàlla leen digal ngeen rendi aw nee na ñu ne ko waaw ndax danga ñuy sabooti mbaa nga dinu reetaan yow ñu ñëw di la laaj ku ñu rey nga naan rey aw nag nee li tax ñu wax ko loolu ñaari mbir yi dañoo sore ndax dañoo bëgg mu leeral leen ki ñu rey ku ko rey mun leen seen borom nee ngeen rey aw nag soree gu ñaari mbir yi soree moo tax ñu jàpp ni da leen di sabooti moo tax ñu ne ko atat ahidna xuusu am Moussa ni leen aousu billahi ana ko minal jaahiliin yàlla na ma yàlla musal ci may doon ab jaahil buy sosal yàlla lu ma waxut nee na bi xamee ni nag woow yi kon moom la yàlla digle xam ni ndigalul yàlla ñu tàmbali di ko laaj meloo nag wi ñu ne ko ud'u lanaa rabbaka yubayyin lanaa maa hiya melal nag wi dëgg-dëgg mooy lan wax nañu ne bu bi mu leen nee nee na ngeen rey aw nag buñ demoon nag wuñ jëkk a jot buñ ko reyoon dana baax def nañ ndigal waaye dañoo sonal seen bopp yàlla sonal leen nee na mu ni leen nag lay doon woo xam ne du màggat du doon gone mooy laa faaridun wala bikr mooy nag wi du màggat du ndawe awaanum bayna dalik mun leen ci diggante boobu lay nekk fa faalu maa tu'maroon nee na fekk ne bi mu leen di bi ñu seen laaj boobu ñu laaj ak taral googu leen yàlla taral dafa am hikma bu ci nekk hikma ba mooy dafa am benn waay bu nekkoon ci bani israel ku doonoon ku baax ku topp baayam bokk na ci nim toppe woon dafa am benn waay bu ko andil wurus mu jënd ko ci juróom fukki junni war war ci manam bénéfice ke ko ko jaay ne ko andi ko ne ko sama baay day nelaw te caabi kees gi dafa nekk ci ron boppam kon da ngay xaar ba mu yeew mu jox la sa njëg mu ne ko yeel sa baay jox ma sama alal mu ne ko mukk man naa laa dolli fukki dinaar da nga muñal ma ba mu yeew waa ji ne ko dinaa la sippil man itam fukki dinaar da nga sa baay léegi te ma sama xaalis mu ne ko dinaa la jox ñaar fukki dinaar ma itam ba mu muñalee ba sama baay yeew te nga muñal ma ba ba mu yeew nee na waa ji ne ko man mën naa laa sippil ma itam fukki diinaar pour nga yee sa baay pour gaaw fay ma li ma fay ma sama xaalis xale bi ne ko ma itam dinaa la dolli ñaar fukki diinaar boo ma muñalee ba mu yeew nee waa ji toog yéewul baayam bi baay bi yeewoo mu wax ko yëf yi ni mu demee nee baayam ñaanal ko daal di ko nag wii nag neexale naa la ko ci jëf ju rafet ci nga def te booba wenn nag woowu moo fa desoon ci àll bi ñu daan sukkandiku bu ma sax di wax day wax ne xool leen li mu def ngir topp ñaari way jur àttana yëkkati ñaar fukki diinaar dolli ko ci njëggum jënde woon dara ngir bañ yee way juram way nelaw rek ibnu abbas ak wax ak ñeneen wax nañ ni bani israël dafa am benn waay bu baax bu fi nekkoon bu ñu wax ibnu tayfi ibnu tayfil moom amoon aw yëkk nee na mu fab yëkk woow yi dem ba ci benn benn àll bu bari ñax daal di ko fay wàcc ni yàlla dégg naa la sama yëkk wii ba ba sama doom ji màgg nanga ma ko fi dencal nee na ginnaaw bu mu fa yëkk woowu yi ko ci gol boobu yi faatu bi mu ko fa dénkee yàlla dal di faatu nee yëkk woowu màggee ci biir gol boobu ba digg doomu wax na ni bi góor gi faatoo yëkk woowu muy sëll woowu màggee ci biir gol boobu ba mujj doon sëll wu digg doomu dara def ko kum sen rek dal di daw mom mom sëll woowu ya xale bi magge ta donon ko baax ku topon way juróom bu jigéen wax nañ ni xale bi dan sedele guddi gi ñetti xaj ben xaj daf koy julli ben bi mu nit mu diko nelaw bu noppé tok fa bop ndem fa muy nelaw tok ci wetu ndem nena bu bët setee mu xëy dem taxani yenu matt ma dem ca marché ba jaay ko bu ko jaayee da koy xaaj ñetti xaaj ndax day saraxe sulus ba benn xaaj ba mu lekk ko ba ca des mu jox ko way juróom wu jigéen woowu noonu la xale bi daan dunde nee na benn bis yaayam wax ko ni ko yow sama ndoom sa baay di bàyyiloon na la aw sël woo xam ne dafa demoon ba ca gol ba mu dénk ko yàlla kon nag demal ca gol boobee ñaan ci yàlla yàlla ibrahim ak ismail ak ishaq mu delloo si la sa dénkaanul bàyyi loole mu dénkaanam ni ko liy màndargaam mooy boo ko gisee day mel ni ceeñeeri jant bi ñooy génn ci derub ca der ba nee xale bi daal dem ca gol boobee bam mu nak wi muy for ya, nena xale bi daldi yoxo dal ni ko mangi dogu ci yow ci yalla ibrahim ak ismaeil ak ishaq ak yaqub mangi ñaan nga delo sil ma nga del si ci man yow nak yow sa sa bi nee wi daldi di ba taxaw ci kanam xale xale bi daldi japp ci baat bi daldi di koy womat nee nak wi daldi di wax ci kàttanu yalla ne ko yow nit yow xale bu top way juram ni war ndax lolu mo gëna a ci yow neena xale bi ni sama yaay kat digaluma mo war la mo ma war la dani ma bo demé na nga japp ci wi wax ni ko giñ naa ci borom bani israël bo ma waron rek do am ci man katan bu mukk doo ma mënal dara ba mukk nee xale bi daal di ànd ak moom dem nee nag wi ne ko léegi nag mën ngaa dem boo junjoon aw doj ngir bëgg mu buddi ko sax dana buddiku ngir topp ngir topp sa ñaar wi sa wajur wu jigéen nee xale bi daal di ko yóbbu nee na iblis dajeeg xale bi mel ni ab sàmm yor jëmmi ab sàmm daal ni ko yow xale bi mu ne ko amu ne ko man de ab sam la buy sam ay nak ne ko dama don sam ay nak bi ma namé sama wa kër ma jël aw yëkk wu bokku ci yëkk yi fab yi bagage ak sama bi yobal yan ko ko waye biñ démé ba ba xajal yoon wi mu daldi dem mada bis ne wi di faji ajo mu dal di yek ci dig ci kaw doj wala te ma ci dal sama yobal bépp mi ngi ci kawam ragal na ne alkane dana ma dab bu bu ma ci jotal ne ko dama bëgg nga tek ma ci sa kaw nak wi ndax nga musal ma ci dee bu ko fee dinaa la jox ñaari nak yu tol ni saw nak xale bi lànk bam lànkee dal ni ko demal te ko ci yalla ndax boo amoon kóolute ci yalla yalla dina la yobbu ba nga ag fa nga jëm ci lulul nga yobbu ab yobbal nena iblis la amatullahi alayhi nikum ko bu la soobee jaay ma nak bu la soobee it nga teg ma ci kaw nag mu gàddu ma te jox la fukki nag yu nu toll nee na xale bi ne ko sama ndaay sama yaay diggalu ma lool nee na bi ñu nekkee ci lool yi am picc naaw ci kanamu nag wi nag wi daal di daw dugg ci biir àll bi bi mu duggee ci biir àll bi sàmm ba it daal di mes moom itam na xale bi daal di wax ne bismillaahi ilaahi ibrahima ba mu ne ñaan naa ci yàlla mi borom ibrahim nee na nag wi daal di delsi ci moom bi mu delsi daal ne ko yow xale bi bu topp woy juróom xanaa gisoo picc mi naawoon léegi iblisa mii noonu bi yàlla ni ko def maa fëkk daal ni ko waaye bu ma waroon de doo mënati ci man dara bu mukk waaye bi nga ñaanee yàlla la ma am malaayka dikk dikkal nangoo ma ci loxol iblis delloo si ma ci yow ngir topp gi nga topp sa ñaari wayjur nee na xale bi daal di yóbbu nag woowee ci ndeyam nee na ndey ji ne ko yow ak faqeet nga amoo dara te taxan bii ngay taxan ci bëccëg bi ak di fanaane naafile ci guddi gi dafa diis dafa metti kon nag demal nga jaay nag wii jël njëg gi nee na ko ñaata laa koy jaaye nee na ndey ji ne ko ñetti diinaar nga koy jaaye waaye bu ko jaay mukk ci lul nga wax ak man diisoog man koo koy bëgg a jaay dana nga ñëw diisoo seeg man doon ko jaay wax nañ ni njëgu nag bi ca jamono booba ñetti diinaar la doon toll xale bi dem ci marché bi yàlla yebal ab malaayika ci xale bi ngir mu nattu ko nan lay toppe ay wéyjur nan la toppe ndigalu la ndeyam loolu la malaayika bi nattu nee na malaayika mi ñëw ni xale bi ñaata ngay jaaye nag wi nee na mu ne ko ñetti dinaar waaye nag ci sartu ma waxtaan ceeg sama waajur ba mu ànd ci nee na malaayika mi ni ko dinaa la jox juróom benn diinaar te nga bañ a diisoo ak sa yaay nee xale bi ni ko boo ma joxoon lu toll ni nag wi eh, lu toll ni nag wi ci wurus it duma jël xaalis bi te du dama diisoo sama yaay ba mu ànd ci ma nee na bi mu delloo ci yaayam wax ko njëg googu ñu ko wax nee na yaay ji ne ko demal boo demee nga jaay ko juróom-benn dinaar waaye nag ci kaw nga jaayee ko juróom-benn dinaar ci kaw nga disoo si ak man nag wi ci marché ba malaaka mi dikkati mu ne ko damay diisoog sama wajur ba noppi daal ne ko nag diisoo na moom waaye lim ma digal mooy ma jaayee ko juróom benn diinaar waaye ci sabtu ma ma waxtaan ak moom ba mu joxe ndigal ba noppi neen malaaka bi ni ko dinaa la jox fukki diinaar ak ñaar ci kaw nga bañ a diisoo ak sa wayjur nee na xale bi bañ dellu ci wayjuram woow yi xibaar ko xibaar bi ni ko am na ku ni ma mën na maa may mën na maa fay fukki diinaar ak ñaar ci kaw ma bañ a diisoo yow nee na yaay ji ne ko waajoo ji di la dikkal di la wax loolu am malaayika la ci malaayika yi daf laa dikkal nag yor jëmmi doomu aadama ngir di la natt rek waaye bu la dikkalatee nee ndax danga ma digal ma jaay nag wi wala na bi xale bi defee loolu malaaka bi ni ko demal ci sa yaay boo demee nga ni ko na téye nag wii ndax moo sab na imraan dana ko jënd ci yow ngir benn waay bu buñ war ray ci bani israël te bu boba do ko jaayee lulul dul der bi ba mu fees ak dinar buñ ca àggee der bi ba mu ak dinar ko jaay kon nang ko tey nee ñu tey e nak wi yalla dogal ci bani israël ñu war ren ci jëm ngir faye ko yalla faye ko xalé bi top googu mu top wo jom ngir ngeenel lu bàyyi ko ci mom te ma lu bàyyi ko ci Loli, mom yi moom la alquran wax ni qaalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hiya Moy, nanu leeral nan lay mel nee na yàlla ni leen yàlla nee innaha baqaratun la faridun wala bikr mooy aw nag lay doon boo xam ne du mag du doon wu ndawe day doon wu digg doomu ci diggante boobu faf'alu ma tu'maru mun leen def leen lii ñu leen digal muy wi bari ay laaj ñu ne ko ñaanal sa borom mu leeral nu nan nan la aw meloon nan lay mel xaalu doxul naa rabbaka yóbbayn dinaa maa law nuha ñu ne ko laajal nu sa boroom mu leeral nu aw meloon mun leen innahu yaqulunaha baqaratun safraa faaqi'un lawnuha mu ni leen aw nag wu gel lay doon gel gu foor بقدي المعتلين لأن دي تار رول تي أب تارم أبو سلم دانا تي يم كيب كو خور يقودني خيرا رني علي بن أبي طالب وحنا من الجميع علي بن أبي طالب يلي ننتي مو مو واحد ولا يسوق كسل دلو mbokk ay ñàkkareem day néew ndax yàlla dafa wax ni safraau faqicun lawnuha tasurru naadirin dàll wu ngir aaya nee na ñu ne ko udul naa rabbaka yu bayn lana ma hiya mooy asaibatun am amila ndax dañ koy bàyyi mu boy wala day liggéey ndax nag wi ba léegi lënt na ci noonu wa inna inshaa allahu la muhtadoon ñu ne ko bu soobee yàlla danañ jëndiku ci melo wi wi mu nuy digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne giñ naa ci yàlla ni bu ñu waxutoon insha allahu jooji duñ leen nangul mukk ba faaw mu leen innahu yaqulu innaha baqaratun la dalul musiirul arda mooy nag lay doon woo xam ni kenn tàggatu ko ba tax muy nangoo liggéey day jàqi suuf si mooy te du màndal kenn ak juróom te du rijjal kenn ay toolam du màndal am mbayit mooy naguñ tàggatu daal mu nag wu mucc ayib la mooy musallamatu هو مج عيب له لا شيئة فيها موي لا عيب فيها موي بن عيب أمج ينكو على أن جئت بالحق فسبقوها وما كانوا يفعلون وقاد نقول الأمن مع التفاي ملو يبو بني دجالي خالي بوبي رك موغا مي خالي طبو ويجرم بوبي jënd ko ci moom ci duy der bi ba mu fees ak or ngir bëgg a xam rek ki rey waa ji kan nee na bi ñu ko jëndee ci xale bi daal di koy rendi nee na loolu yi la alxuraan di wax ni wa it xataltum nafsan fa daaratum fiiha te nafsu bi lu mu ci jublu mooy xaamil moom yi nii la nag wallaahu muxrijum maa kuntum taktumun ne li ngeen doon nëbb nag yàlla dina ko feeñal lépp fa qul naa dribuuhu bi ba'dihaa ñun leen fab leen lenn ci nag wi dóor ko waaj Ibnu Abbas nee na ñu jël genn bi ni ko ko bàcc waaj jóg ñu jógee ñu ne ko ku la ray mu ne diw mi moom la bani israil jaaraat ak Moussa ci kooku ñu rayoon di ko ak seen yu bari ngay man di jot vidéo yu am solo yi bàyyi koo fii ci religion da ngay def ñu wax ci bi